asalaamaaleykum mbokk yi ñu sant yàlla moom mi ñu may xel ak xol sant ko si lim ñu baaxe ñu teewoon fi démb tey ñu ne fi ànd ak yéen si jotaay bii di xel ak xol xel ak xol si fàttali rek ne doomu aadama suñu borom da ko jox ay jumtukaay yu mag ñaar yooyu si la bokk doomu aadama diggante xelam ak xolam si la dundam yëpp di tënku képp koo xam ni sa xel yow toogoo si yaa ngi koy jëfandikoo da ngay gis ne yiw ak xéwal yu bëri la lay jural boo toogee sa xel nag ñeneen ñëpp dañ lay raw léppit daf lay raw ñi raw si àdduna bi si wàllum benn nit ñaari nit mbooloo euh, gox dëkk réew ñooñu mooy ñi gën a jëfandikoo seen xel boo jëfandikoo sa xel rek ñëpp dañ lay raw soo demee si réew yi nga xam ne tey ñoom ñoo gën a féete kaw ci àdduna bi réew yooyu wàllum xel lépp lu jëm si xel dañ ko jox gëdd dañ si def waxtu def si alal def si man-man def si ay pexe ngir rek xel yi di nàcc xel yi di jural nit ñi ay saafara li ñuy dund waaye boo demee si réew yi nga xam ne ñoo gën a ndóol réew yooyu saa su ne day gis ni xel dañ ko fa sàggane day gis ni xel joxuñu ko fa gëdd doomu aadama it dafa am xol xol boobu moom moo tax moom ay yëg-yëgam am fu muy yëg am fu muy toll moom moo tax doomu aadama yaatu doomu aadama yëwan doomu aadama di bokk doomu aadama di boole loolu yëpp xol moom moo ko joxe xol bi léeg-léeg su su laabee su sellee rek dañuy gis ni doomu aadama bi moom jéggale daf koy yomb baale daf koy yomb euh, boole daf koy yomb Euh, yéwénal daf koy yomb euh, yaatal daf ko yomb waaye bu xol bi yaatuwul rek doomu aadama da ngay gis ne léeg moom dafay soxor dafay iñaan dafay xat dafay siis loolu yëpp daf ko jural moom doomu aadama bi gàllankoor ndax dundam du mën a neex dundam du mën a tey euh, tey ngaay moom moo nekk ci réalisation bi am na benn Euh, vidéo bu ñu bëgg ngaay nga wàññi ko si wàllum xoolu doomu aadama ñu xool léeg li mu antana def done. As a father, I feel sorry for your parents. They raised you and they want you to be successful. is their success. Now they have to cry because of your crime that commits my son, my nephew. I forgive you on behalf of Salahuddin and I think this may be a good time to a break. Thank you. I'm sorry about what happened that njukkal ngaay foofu ci réalisation tey euh, Aman Ndiaye moo nekk son bira vidéo euh, tey ji euh, Amdi Moustapha moom mooy moom mooy cadre fii vidéo bi dafa daw yaram ndax gis nañ koo xam ne dañu rey doomam waaye moom baal na ki rey doom ji ki bokkoon si reyu doom bi ba gis nañ noonu nu mu ko jëlee sëf ko si dënnam loolu day wane rek ni doomu aadama xolam mun na ko yóbbu foo xam ne dafay def lu lu mag lu rëy euh, tey nag suñu jotaay xel ak xol ñu ngi si ànd ak euh, Pape Ndella Samb Pape Ndella Samb moom euh, bindkat la xam-xamam dafa màcc si yu bari dina ko leeral léegi ànd si tamit ak Seydina Issa laay Sow Seydina Mame Alassane Laye Sow moom mooy président forum de jeunes consommateurs Pape Ndella Samb ñu ngi lay nuyu la ziar. ñu ngi delloo nii ak yow tamit euh, Seydina di la nuyu di la ziar. ñu ngi delloo ziar bi di la nuyu di kontaan bu euh, suñu wax xel ak xol ban xalaat la lay jox. waaw li ma ci njëkk xalaat mooy euh, gëstukat yu mag yëpp dañu wax ne xalaat moo am primauté sur la matière te. boo boo gisee le matérialisme ni muy doxee le capitalisme ak suñu société de consommation bi dafa mel ni nit ñi dañuy privilégier la matière or l'idée est à la base de toute réalisation de lu yëngu li ko yëngal ko ëpp doole. voilà voilà ci xel lay commencer. waaw mooy xel mi mooy mooy yëngal. mooy yëngal voilà moo yëngal. moo tax xel baax xel di war a gëstu. par exemple ñun suñu problème yëpp. dañ ko war toog di xalaat. parce que dans la société de consommation nit ñi amuñu temps wu di xalaat li nga xam ne moo leen soxal doo dégg nit mug ne bon liggéey mooy lan. doo dégg nit mug ne bon emploi mooy lan le travail mooy lan. or dafa nekk ay termes yoo xam ne su ñu bëggee régler nos problème de société war nañ ci waxtaan tënk ko mu bañ a nekk simplement lu superficiel. sëy naa yow bu ñuy wax xel ak euh, xol ban xalaat la lay jox. waaw man foofu xalaat bu ma jox damay dellu si rek euh, bi may def benn formation en entrepreneuriat suñ prof bi dañuy toog ba si yàgg mun ne ñu le cœur a toujours raison mais le le cerveau c'est un tricheur. le cerveau. c'est un tricheur. c'est un tricheur. waaw kon foofu li muy li muy bugg a wax foofu mooy que euh, lu dëgg lu ne dafay jóge si xol si xol lay si xol lay si xol lay jógee. pourquoi yàlla def euh, suñ côté gauche bi xol nekk si ànd ak 81 euh, turu yàlla yi fii parce que pour supporter poids bi. 81 turu yàlla si naka. si si naka parce que boo xoolee sa loxo bi sa loxo loxo suñ loxo yii nii. 81 mhm. turu yàlla moo si ne. si naka nag ñu si 83. waaw yow peut-être c'est invisible mënoo ko mbirum <laughs> mbirum yàlla mbirum yàlla c'est invisible. yow tey jii boo xoolee sa rëdd rëdd yi sa bos ak sama bos nuróowul keneen ak keneen nuróowul. waaw loolu mbirum mbirum suñu borom la. waaw ah non 81 bi nga wax laa fu mu jógee. fu mu fu mu fu mu jógee dañ ko jàng ni dañ ko dañ ko dañ ko jàng te xam naa loolu man gënu ma la ko xam. ah déet man kat da nga da nga indi. waaw man parce que explication rek moo mu moo mu dugaloon foofu pour pour wax la pour wax la poids bu xol bu xol am. ak mais tey xam nga téléspectateurs yi lay déglu. Ah. nga wax 81 ñoom mm. léeg lekk bëgg nañ mu leer seen bopp daal. non que spectacle képp kuy kuy jullit di jàng loolu dafa doon loo xam ne c'est élémentaire ñu bëri ñu bëri xam nañ ko jaruñu si attardé wu de de trop. ñu bëri xam nañ ko ñu bëri euh, xam nañ <laughs> euh, Samba li nga wax nii tey est-ce que ñun si réew mi <coughs> ñu ngi jëfee wàllum xel ak xol si anam yi gën. waaw mais dama yaakaar ne buñ doon jëfee xol du moins xel d'abord. ak xol donc euh, ñun fi ñu toll ci mbiru développement ak mbiri contribution à la connaissance universelle kon dinañ ko weesu donc ça veut dire que yooyu ngay wax jëfewuñu ko parce que ñun amuñu xalaatu nit ça je le dis ñun dañu am esprit boo xam ne c'est dans mes recherches que j'appelle la conscience dérivée l'esprit dérivé de par notre histoire donc ñun amuñu xelu nit. ñun xelu lan la ñu am mais xelu mala. suivisme du n'importe quoi ak moo tax nit ñi parce que tubaab bi ñuy ñëw di ñu dañu commencer par ñu laver le cerveau dugg ci yeneen yoo xam ne euh, baaxul yuy répercuter actuellement ci situation bi sunu société mel. ñun sénégalais xelu mala la ñu am. xel ñu je parle des africains en général xelu mala la mais entre guillemets ça veut dire que li ngay woowee xel mais c'est c'est c'est la rhétorique nit ki da ngay toog. face ak sa existence face avec tes problèmes de société face avec ta vie d'homme ngay poser say problèmes or ñun avec la société de consommation avec les valeurs négatives mais on n'a pas ça là société de consommation mooy man ñun daal euh, nañuy jënd di lekk di naan di solu loolu ñu yitteel ak euh, jikko yu yàqu yi mooy valeur négative oui te société de consommation moom mooy li monde bi actuellement di joxe avec le système capitaliste. Euh, Seyna euh, Mame Alassane Laye Sow ndax ñun xel ak xool ci réew mi ñu koy jëfee. waaw mun nañu mun nañu wax na xel ak xol ci réew mi ñu ngi koy jëfee parce que tey tey jii lu waral suñu invitation mooy lool mooy que man dama bokk ci benn groupe bu ñu Forum des jeunes consommateurs du Sénégal mooy ñu toog xool ne que am na défaillance surtout tous les euh, plans mooy que li war a dox doxul. li ñu ne naka la ñuy def na pour loolu mën a dox en tant que doomu aadama mu war a toog. mais su su su doxul. waaw est-ce que li ko waral du ñun dañu jëfewul xel ak xol moo tax doxul. non défiance bi foofu la nekk parce que parce que. nit ñi ah, parce que da nga njëkk ne dox après nga ni. Euh, doxul lu war a dox xam fekk lu war a dox te doxul mooy que ñun dañu waroon a ànd vivre en masse en harmonie dund dund bu teey bu mucc ayib. mais défaillance moo am si nit ñi. défaillance bi lan la défaillance. mooy défaillance mooy ni àdduna tëddee mooy bëgg-bëgg yi bëri na kenn ku nekk mu bëgg nga am ignorance baa ngi fi euh, ñàkk dimbulante ñu ngi fi si boo demee si plan si plan économie si plan économie équilibre. Euh, économie amul parce que boo xoolee euh, boo xoolee ba si problème emploi emploi yi nga xam ne moo am fi emploi des jeunes ñun ñu si gën nekk ay perdants. mais mais tey boo waxee ne euh, ignorance dafa am mooy ñàkk xam. dafa am ñàkk dimbalante dafa am. dafa am lool loolu kay mooy xel ak xool amul parce que ignorance fu mu am. mooy ah. jëfewuñu jëfewuñu xel ñàkk dimbali fu mu am mooy jëfewuñu jëfewuñu xol. non mooy loolu loolu dafa mën xam nga sa départ ba nee naa la looloo waral ñu ñu ñu constituer en groupe. pour def def rappel boobu que ñun dafa am lu ñu war si at lu ñu fi indi lu ñu war a jëfe euh, tey xel ak euh, xool lañuy fàttali rek ne que euh, ku ko jëfewul rek yow boo matul di nga di nga tardé di nga guddee tey jii Pape Ndéla Samba yan leeral nga bëggoon indi. leeral ci. leeral yi tax nga ñëw leeral yi tax ñëw fii. voilà xam nga. pour man dañu toll ci un moment historique moment historique bi mooy ne ñu ñuul ñi de parleur leur histoire de parleur leur passé lu bon li ñu teg seen kaw yëpp jox na leen actuellement une maturité de conscience ba ñoom ñi ngi commencé nag di indi xel nit ñu ñuul ñi waaw ne ñu ñuul ñi en général parce que j'ai dit que dafa am maturité sociale boo xoolee euh, ci dëkk bi nu muy doxee ñëpp ñu ngi naan lii baaxul lii box bon na dañu war a def nii dañu war a def naa et cetera et cetera am na ñoo xam ne sax man dégg naa ci plateau télévision la semaine dernière ñuy réclamer une révolution lente donc ça veut dire que. révolution une révolution lente. révolution bu yeex révolution bu yeex noonu lañu koy mais cela montre simplement que le peuple aspire changement te man pour man la révolution ou le changement doit être global mënuñu bëgg jël benn fànn comme par exemple la monnaie ñu ne dañ ciy xeex rek kese wala ñu jël euh, la France-Afrique sur le plan de la coopération ñu ne dañ ciy xeex rek non il faut s'attaquer aux fondamentaux comme disait Ahmed Khalifa Niass lan mooy fondamentaux yi fondamentaux yi mooy ñun par exemple dañu bëgg a taxawal mouvement boo xam ne ñu ngi ko tuddee le mouvement pour la renaissance africaine africaine parce que dafa situé dans l'espace fondamentaux yi mooy lan du taxawal mouvement bi yan mooy élément fondamentaux yi nga wax ni yooyu la ñu war a attaqué mais c'est c'est la liberté de l'homme noir nit ku ñuul dafa war a am d'abord liberté nit ku ñuul fu mu toll ni amul liberté amul benn liberté nous sommes opprimés politiquement technologiquement scientifiquement nous n'avons même pas le pouvoir de dégager sur une priorité ñun de développement regarde ce qui s'est passé la semaine dernière il tout un conseil qui est allé en France Macron anamu du mi ngi fii tous les pays qui sont en train d'exploiter l'Afrique ñu ngi affûter des armes yoo xam ne jëm si ñun ci Afrique donc il faut que ñun aussi bu ñu conscient ci loolu mais ñu teg ay euh, barrières pour les recevoir. ñun daal euh, moomuñu suñu bopp ñun doomi Afrique. dañu ñoo la fii ñëpp xam ne rien ne marche. ni la justice. ni waaw mais c'est trop facile nga jël sa rajo travailler travailler mais faut looy liggéey y a aucun secteur qui fonctionne dara doxul fi dara baaxu fi le service de la dette loo xam nga ni mu demee et le système là va s'écrouler mais du ñu toog nag nit ñi. ah les étrangers ñëw ñun di ñu tracer suñu histoire. te yow professeur Ibrahima Thiam ñu ngi liggéey si bind suñu démb bind suñu histoire. ma ma je suis pour l'avenir. comprendre ah, histoire tam foog ñu bind ko munoo wax avenir te xamoo sa histoire. d'accord dañuy appuyer wu ci histoire pour indi xel moomu nga wax. mais on va pas s'ancrer dans l'histoire. dégg nga xoolal ñun nous voulons prendre le devenir de l'Afrique le devenir de nos enfants. dañu bëgg ñu développer mooy les gens se soignent tey moi je vois des gens mourir pour 2000 francs soo añee doo reer mais attends il faut sortir de Dakar ngeen dem à l'intérieur du pays ay CMU tey euh, président bi mu ñëwee nee na couverture maladie universelle yooyu loolu la. moi j'ai pas confiance au mécanisme yi nga xam ne ko teg moi je les rejette tout. yooyu mécanisme tubaab la ay CMU yooyu. waaw waaw quand même y a y a l'affaire Panama Papers. les statistiques la ah, waaw Panama Papers lu mu jotee ak ay CMU. non dama c'est pour montrer que manipulation bi nga xam ne par exemple tubaab yi dañ koy def ci seen i politique wala ci seen i chiffres man aw ma confiance. Pape Ndéla Samb ay CMU du yëfu manipulation tubaab loolu lu ñuy dund le fii wala. CMU c'est la couverture maladie universelle. waaw waaw mais ça n'existe pas sëñ bi. Hmm. je suis en contact avec le petit peuple. moi je vois des gens ñu yéeg ci di liggéey daanu. bu ñu demee hôpital on leur réclame deux cent à trois cent mille francs ils finissent par revenir chez eux dans leur case ou bien dans leur petite chambre fa la ñuy tëdd. ah parce que CMU du pour ñooñu de pour xale yi la moins de cinq ans ak yooyu. moo xanaa looloo tax nga ni manipulation dafa am. je parle en général de la santé même CMU boobu tamit la dama la bëgg a wax idée bi nga xam ne mooy germer dans la population nit ñi dañu am pour yóbbu seen doom. Euh, mu toll nii daal euh, yow daal da gis ni que euh, xel dalul daal si réew mi fi ñu jógee ak fi ñu toll nii ak ni ñuy demee ni daal yow sa xel dalu si. du question xel dalu ci de réew mi doxul et ñëpp a ngi wut ay yoon pour s'en sortir mënuñu nekk fii rek toog naan réew mi dal na dox na doxul jusqu'à cent ans. Hmm. te loolu moo fi am. jàppal benn rajo bu la neex wala benn télé bu la neex les gens sont là en costume de 300 000 francs dégg nga toog lii baaxul on doit faire ceci ay théorie nihiliste la yoo xam ne moom la tubaab bi dugal seen bopp. ñu daal euh, xelu tubaab bi la ñuy demee te euh, réew mi euh, doxut ba pare wax moo gën a am que jëf suñu la déggee bu baax Pam Ndera Sam dañuy dem régie ngaay nga wan ñu waa AEMA li ñu wax. ko defee ñu dellu si waat léegi suñu plateau xel ak xol. nécessité te amuñu ko nit ñoo feebar bëgg faju di dox ay kilomètres yi kilomètres te amuñu électricité. waaw. yow nga am ko di ko yàq. mais yow n'est-ce nga bëgg ñëpp defal nañ la ko. non mais boo utiliser frigo ba pare mais tëj ko xoolal machine à ko ñàkk koo am te xam ko sax mu ngi gën ko am fee laaj dàq fee yàq ay c'est pas euh, courant dañ ko war a yàqanal waruñu koo yàq dañuy tëj frigidaire yi duñ ko jëfandikoo làmp fay ko bu fa kenn newul euh, ventilateur bu uppul kenn ñu fay ko télé bu kenn seetaanal ñu fay ko ndax yaxanal courant moom mooy euh, yaxanal sa poos euh, suñu jotaay xel ak xool tey ñu ngi si ànd ak Pape Ndera Samb ak euh, Seyna Mame Alassane Laye Sow Seyna yow tey yan leeral nga bëggoon indi. waaw tey leeral yu ma bëgg indi mooy pour wan leen wax leen ne kuréel gi ñu nekk muy forum des jeunes consommateurs du Sénégal mu nekk ay ndaw yoo xamante ne ce des jeunes leaders yu si nekk am vision soucieux le devenir. de ce pays. nekkul ne yaa ngi tagg seen bopp rek léegi lan ngeen def non tagg non question tagg suñu di question tagg suñu bopp mais dañ leen bëgg wax ne ñun dañoo am conscience que réew mi fi mu toll nii ñu ñoo ko war a jël en charge parce que boo xoolee même même politiciens yi. dara doxul dégg nga li PAM la. waaw pa bi euh, AVM la wax dara dara doxul. si dama si ànd ak moom fi mu wax ne dara doxul mais am na li fi jot am am na effort yu fi am exemple comme ñun les consommateurs. bi yàlla dogalee euh, président Macky Sall ñëw ba léegi am na ay wàññeeku yoo xam ne am na fi. lan moo wàññeeku. parce que gaz bi wàññeeku na ceeb bi wàññeeku te boobu ba léegi wax dëgg yàlla yokk yokkul courant wàññi nañ ko tout récemment 10 pour cent. Ah, am na yu ñu doon ay euh, légalisation yu ñu doon def ay teg 200 francs 300 francs si si thème bi yooyu yëpp dindi nañ ko supprimer nañ ko amatul amatul léegi. loyer bi tamit bi tamit euh, euh, wàññeeku na am na régulation mais dafa dafa am dafa am ay ay manquements yu si am ça on le reconnaît mooy que nit ñi la manquement yi si nit ñi la mooy yow yow da am sa problème loyer kii ñëw nee la yow man dama bëgg a defar fii ak nangam sàngam joloke la ba nga génn. mais yoon da bu fekkee ne daf la bëgg a jologe ba nga génn la bindal kayit lu wane ni lii moo tax ma bëgg liggéey ma bugg bëgg liggéey ñu ñi duñu xam seen àq ak seen yelle léegi ñun dañu yëpp si ñun jànguñu xam nga voilà léegi nag nii ñu ne da ngay da ngay ay association yu mel ni comme comme ñun fas ko fas ko seen ay asko seen ñu ngi fi nga xam ne président Momar Ndao mi nga xam ne moo dirigé Momar Ndao yàgg nañ nekk président moom rek moom moo nekkoon président non non Momar Ndao c'est que xam nga yow tamit yow forum bi bi mu tàmbalee ba léegi yow rek yaa ko jiite non forum bi yàggul ñun ñu ngi démarré 2015 lañ démarré 2016 la suñu récépissé génn ñun forum bi euh, euh, euh, quatre ans la mandat bi mandat bi la te boo dépassé 40 ans mënatoo ko jiite. parce que ba affaire ndaw la dañu bëgg mu nekk ndaw léegi au delà de 40 ans dañu lay copter comme personne ressource. léegi ñaata ngeen nii. fi mu toll nii ñuy au départ wu nañu si gox yi bu baax a baax. léegi ñaata ngeen. léegi fi fi mu toll nii chiffre bi teewuma ko teewuma ko ah, am. non war a xam ñaata ngeen nag. yaa jiite affaire bi. non xam nga jiite affaire bi taxul tamit. moom da nga war a am sa tableau de moo xam ni. Mhm. këyit goo xam ni. Ah. mbooleemu chiffre yi important. si mhm. kuréel gi da nga ko war a yor. dëgg la xam nga yeewee 3 ah, dëgg dëgg la xam nga ne yow 3 heures du matin léegi yow. Ah. laaj la sa poste ñaara si ne. waaw di nga ko wax waaw. mais xam nga mise loolu nekk si mise en jour en jour. waaw mise en jour dañuy actualiser. xam booy waxtaan rek. booy dem émission a def mise à jour. ñu la laajee nga nga nga tontu. bon euh, Pape Nder sam yow li nga wax nii yëpp tey léegi. lan mooy euh, maanaam nan lañ koy lijjante liñ koy lijjantee daal mooy que nit ñu ñuul ñi muy sénégalais yi muy africain yi ñu jël d'abord conscience que dañ leen di nax jël ko nangu ko ne ils sont ñu ngi koy yàgg nañ ñoo nax dak voilà mais nag xam nga comme tu as dit Euh, ñun dañoo am ay quatre vingt quinze pour cent d' analphabète. non pas quatre vingt quinze. bon ñu wàññi ko comme tu veux rek. <laughs> ah waaw disons quatre vingt sept quatre vingt six pour cent. d' analphabète ñu si cinq cinquante cas. <laughs> quand même pour cent. non loolu moom la bàyyi nga dégg nga donc il faut d' abord que la population ñu jël conscience parce que mooy xel bi ngay wax parce que xel la bu ñu jëlee conscience ñu xam ne fekk ñu ngi ànd ak tubaab yi Afrique du développé. maanaam ñoom li ñu. mais ñun ñun mënuñu si dara ñun population yi ñiy jiite ñoom ñooy ànd ak tubaab ñoom ñooy lëkkaloo ak tubaab ñooy signé ay accord ak tubaab ñun. mënuñu si dara non non Tunkara bul wax loolu yow tamit. parce ah. que moi personnellement depuis vingt ans dama dégagé benn révolution dialectique parce que bu njëkk ba communication yi nit ñi dañuy wax avec des groupes organisés nous sommes d'accord en 98 la instauré que bu ñuy wax dañuy wax ak l'individu mais c'est l'Africain c'est l'individu moo mën a développer Afrique. mais mais non dama lay jox tey benn exemple tey tubaab yi am nañ fi base aérienne. way fii ci Wakaam. waaw man mii ànduma si. waaw man lan laa si mën. waaw yow mais mais ñan ñoo signé accord yooyu. mais déglu ma wax la kilifa la mais déglu ma wax la. xoolal fii yow mi wax xool. kii ça c'est le cri du cœur. 98 laa ko bind. ma def ci ñun suñu bopp ñu attaqué la base de Wakaam. attaque ko ASC yi jógee Medina ñoo dem attaqué ko pour déloger ko. mos na fi en 98. defoon ngeen ko mais c' la fiction quoi. ah fiction la waaw mais regarde projection bi la mooy xel bi ngay wax yow. kon daal ñun ñoo fi war a jëlee tubaab yi. mais bien defal ndànk. ñu mel ni ñoom Bolloré ñoom ñoo ñëpp. ne defal ndànk parce que c' est une approche méthodique def ndànk da ngay xool àddina bi ni muy doxee xam tubaab yi li ñu yore yëpp ak doole bi ñu amee mm-hmm. ak euh, économie bi ni muy doxee ak service financier yi ni ñuy doxe yow nga wax wut sa yoonu suuf yoonu suuf boobu moom laay ñëw nag di proposer askan bi parce que qu'il est temps que ñu def révolution hmm? mais pour man révolutionnaire la moom. mooy j'appelle à la révolution mais nag bu ko jox sens bi nga koy déggee no parce que ñun de viol non violence. ban yow ban xeetu révolution ngeen def. une révolution réfléchie en fonction de la situation coopération internationale bi. mais waa léegi wax ñu déclinel ñu. révolution bi concrètement nu muy demee xam nga nu muy demee mooy d'abord euh, ñi nga xam ne ñëpp bëgg nañu xeex pour am seen liberté pour Afrique développé ñu ñu dajaloo ci mouvement bii ñu taxawal ñu koy wooye le MRA mouvement pour la renaissance africaine mmh. mouvement boobu nag taxaw ci principe yu leer principe yu mooy <coughs> dañuy fexe ba am une mainmise sur notre économie naka loolu ñu koy def en s'investissant ñun ñooy financer développement Afrique man bu ñu demee ba taxaw ñi ci bokk ñëpp ñu toog ñu ne boobu kii na joxe nañ joxe ku nekk 200 wala 300 wala 500 4 euh, milliards de personnes bu ku nekk joxe 500 ça fait 2 milliards. 4 milliards yooyu fu muy jógee 4 euh, millions a wax 4 millions de personnes. ku nekk bu joxee 500 ça fait combien à peu près 2 milliards. ñu toog ñu ne 2 milliards yi ban secteur de l' économie la ñu koy dugal mais mën nañ créer suñu école 3 ou 4 écoles. waaw école yoo xam ne euh, pédagogie active la ak expérimentation ñooñu bu ñu demee fii ak 10 ans 15 ans dañuy former ay nit xoolal la problème de Yao Sélim mel ni ñun mënuñoo defar ay école léegi yéen loolu kañ ngeen koy tàmbali. loolu ñu ngi ci. parce que ngeen ko. créé bi weesuwul ne depuis huit mois nous sommes dans la phase. de sensibilisation est-ce que est-ce que créé ngeen MRA. créé mooy lan. mooy est-ce que juddu na est-ce que tey am na kenn. ko moo koy jiite. Euh, kan moo kan moo jiite MRA. MRA fi mu nii y' un comité dinitiative yoo xam ne ñu ngi liggéey depuis huit mois le manifeste que tu vois là on l' a distribué au Sénégal. ñaata nit ñoo bokk ci MRA. non je peux pas parce que fi mu ne du sunu sensibilisation lañ toll. sensibilisation ngeen toll donc ñoom ay révolutionnaire lañ révolution daal <coughs> mooy jéem a dindi li fi ne euh, li fi newoon yëpp ñu dindi ko indi lu bees. te du am benn. jafe-jafe ci nit ñi te kenn du xuloo kenn du xeex kenn du xuloo kenn du xeex kenn du yàq. fett mais am suñuy entreprise am suñuy école am su suñuy banque. waaw ah, révolution bu mel noonu mës na si àdduna bi. waaw mais le contexte est particulier Marx quand il écrivait son kii socialisme dialectique c'était en fonction de la montée du prolétariat. ban ban ban ban la ko Max waxee. waaw xam ban téere la bu mu dugal ci yooyu jàng moo ko mais l' essentiel daal yow xamal ne le contexte que nous vivons actuellement historiquement mënoo ci wax beneen bu am ci àddina donc xol bi ngay wax nag xel bi ngay wax la ñu war a ñun teg. waaw mais mais tamit bu fekkee da ngeen bugg def révolution waaw. Euh, ni ngeen ko bugg defee ngeen ni yéen c'est révolution pacifique la. pacifique la kenn du xuloo kenn du xeex. Euh, euh, non bi tuuru Euh, fetal bu tàkk apolitique apolitique nous ne cherchons pas le pouvoir. Ah, mais loolu politique la parce que pour nga bañati ñu dominer la. politicienne quoi entre guillemets. ah la parce que foog yow économiquement politiquement socialement sociologiquement yooyu yëpp nga soppi li fi newoon. loolu moom politique nga def parce que vrai politique. moom mooy euh, loolu. léegi euh, man tamit affaire daf ma convaincre bu baax parce que ni ñu ko waxee mooy. Mm-hmm, mm-hmm. nañu fexe ba jëlee fi tubaab yi. jëlee fi li fi li fi ne te waru fi woon ne mm-hmm. mais. Euh, nen du toj euh, bal du tàkk euh, fetal du du du jib mhm. loolu moom na doy waar de non doyul waar mais yow actuellement est-ce que du ah. yow li nga dem ba léegi nekk mag xam ni yow tey mënatoo xeex moom moo tax nga wax loolu mais non parce que man toute ma vie j'ai œuvré pour le développement de l'Afrique bi ma nekkee nii si ay xalaat ay recherche ay. mais yan action nga def action. ci yu mel nan ah si wàllu révolution yan action concrète nga def. mais suma livre ngi nii. bon livre bi moom xalaat la. xalaat la ci lu jëmale Afrique kanam. benn roman la fiction la en plus. waa fiction la mais beneen ngi nii tamit beneen ngi nii. ñaata livre nga bindagum. boobu la ñu publier. bii ah. pare na maa ngi cherché ko ku publier. Euh, moom Pape Ndeye Samb moom moo bind téere bi le cri du cœur euh, ab roman la man nag liiraguma ko maa ngi koy soog a gis nii. waaye xam naa warul euh, warul warul ñàkk solo ndax xam naa roman révolutionnaire la bon comme c'est romancé. en tant que ah. mais dooyu xool la tudd. tu vois oui donc. Euh, waaw mais fiction boo xam nii nit ñi dañuy dem. voilà jëlee fi armée française suñu ne. voilà loolu moom. Euh, mais loolu moo ci gën a te tubaab yi yow li ma jaaxal tamit xam nga vrai euh, tubaab yi boo boo leen fi bëgg jëlee pour ñoom yow da nga foog ñoom dañuy toog noonu comme ay fleur rek nga ñëw rek seppi leen rek génn leen ci réew. je t'ai dit c'est-à-dire mouvement bi dafay prone la rupture avec les tubaab man j'entends par tubaab. képp koo xam ne euh, der bu weex nga yore ñëw pour exploiter euh, Afrique te sama ah. mbokk chinois yi fi mu ne nii ñoo jël la relève. ñoom it dañu li xew Zimbabwe ñoom it dañu leen war jëlee nga foog tubaab ñun moom suñu bopp nag mooy vraiment ñu jëlee fii koo xam non non ça n'exclut pas ëllëg la coopération bilatérale te lii c'est une continuité le mouvement là c'est une continuité de par nit ñi nga xam ne yëpp mas nañu xeexal nit ku ñuul. est-ce que euh, Seyna. yow tey lan ngay tënkee mbir mi. waaw man li may tënkee mbir mooy xam nga am na Nelson Mandela bi ñu koy door a fal. bi ñuy nit ñu ne nañ dégager tubaab ban at lañ fal Nelson Mandela. 95. suma 95 bi bi mu ñëwee nit ñi ne bon nañ fi jëlee tubaab dañ leen déet bu leen gaawante parce que tubaab yi ñoo ñoo yàgg si pouvoir bi ñoo yor économie yëpp yëpp mënu leen jël jël la. foofu ci Afrique du Sud. Afrique du Sud exemple la mooy ñu lu ñu dal si Afrique fépp mooy colonisation bi tubaab yi ñoo fi yàgg ñoo samp. li fi nekk yëpp en terme d' euh, économie ñun la bi ñu am muy industriel boo xoolee sénégalais yi si am ay industries yu bëriwul parce que il y a problème de euh, patriote économique patriote économique dafa am parce que ñun boo. Euh, patriote économique. patriote économique. waaw ah, Sénégal non dans notre pays amul. amul patriotisme économique. patriotisme économique am amul parce que nit ñi li ñuy créer seen seen entreprise système capitalisme. la ñuy def des fois duñ nangoo fay. ah mais entreprise nag c'est capital non non capital capitalisme mooy lan capitalisme moo nekk man sama bopp rek. déedéet égoïsme loolu du capitalisme égoïsme mais capitalisme. capitalisme effréné du profit. ah vite mën nga am. profit mais nga équilibrer ce profit. Mhm. en tenant compte les intérêts des autres. waaw mais loolu attention yéen définition yi baaxul. parce que euh, li li li mu wax ni yow individualisme ak égoïsme moom ngay wax. dañuy ñëw xam si mbirum économie. xam naa dañuy dégluwoon te rek yow. bisimilah wàllum économie yow da nga jàng économie. non defuma économie mais euh, defuma économie. da mais mais eh, définition bi nga joxe moom du capitalisme. d' accord capitalisme. yow égoïsme nga wax. ak individualisme. ñaar yooyu dafa ah. wutee ak capitalisme moom mooy maanaam capital. Ah. xaalis yi moom la ñu gën a jox valeur ba pare nag. Euh, dañ ko jox valeur si toujours ut ay profit euh, parce que bu ah. profit mais profit bu amul entreprise bi du mën a du mën a jëm kanam tamit d'accord d'accord profit yooyu moom la ñuy war a réinvestir léegi suñ demee ba nag euh, mu yegg si niveau wu bëggee niveau cupidité xam nga problème foofu la nekk bon mais nag capitalisme ak loolu tamit dañu dañ dañoo ànd na la ñuy fexee nag ba affaire bi digg dóom naa lool moom mooy vrai débat bi daal li li ñuy fexe ba mu digg dóom bi mooy que il faut que suñu nu ñuy diriger conscient sa hmm. veut que ñu ñu nekkal ensemble national waaw ah, euh, noonu ni comme ñu am ay type yu mel ni yow tey jii euh, doon naa gën a am contact yu mel ni yow. non ñoom ku mel ni yow ak man ak kii ñu nekk ay député ñu nekk ay député nekk ensemble national parce que tey am nañ cause bu ñuy xeex gëm nañ gëm nañu réew mi gis nañ am na ay défiance yoo xam ne ne dañ ko war a réparer tey jii tey bu la yàlla defal nga nekk ensemble national wala. quelque nga nekk maire si si si benn quartier kon défaillance yu bëri duñ si mun a taxaw duñ si. man mii am na yaakaar Ousmane. su fu a toll nii ñu ngi delloo jukkal euh, Ousmane Sonko Ousmane Sonko. Ah. mi ngi mi ngi foofu te ñun ñëpp. xam nañ ni euh, moom euh, lu ko yitteel moom mooy askan wi góor gi lan ngay tënkee mbir mi. waaw li may tënkee mbir mi daal mooy au début dama ne c'est un moment historique. Mhm. moment historique mooy. suñu demee ba askan bi soxla changement il faut ñun ñu ko seq ñu bokk xalaat yi parce que bu ñu instauréwul ñun suñu processus pour un changement euh, efficient bu baax boo xam ne du ñu indil benn musiba dañuy indil changement boo xam ne c'est anarchique. anarchique mooy loo anarchique mooy. comme j'ai dit tout à l'heure le système capitale va s'écrouler parce que boo xoolee. ah loolu bi ñu ko yàggee wax yàgg na de 250 ñoom Karl Marx di suffit jël ci kenn rek. Euh. il suffit tubaab yi ñëw rek yëkkati ci kenn rek kooku chamboulé affaire mais mais góor gi bi ñuy tàmbalee wax ne système capitaliste dafay écroulé wu. waaw xam nga ñoom Karl Marx ay 1848 lañ doon bind seen téere yooyu. waaw ba léegi capitalisme mi ngi taxaw de. waaw mi mi ngi taxaw mais mi ngi taxaw mais te socialisme ak yooyu ñoo daanu mais capitalisme mi ngi ni taxaw de. waaw mais socialisme lu bari ci moom lañu ko jëlee. ah mais dama ni daanu na. waaw te aussi wa euh, waaw actuellement. daanu capitalisme moom fu mu toll nii moom moo fi ne de. waaw mais d'accord mais ñun comme ñun dañ nekk société boo xam ne dañuy xalaat ah mais nañu xalaat parce que. ñun bokkuñu bëgg-bëgg ak tubaab yi. mais est-ce que ñun tey waruñu weesu xalaat rek est-ce que waruñu toll. moo tax man fi demande l'action. xoolal man dama. mais action bi lan la. action bi mooy militer dans un mouvement boo xam ne am na ay but yu précis but yu précis mooy à la longue d'ici dix quinze ans trente ans def une rupture avec les tubaab moom suñu bopp. mais day fekk nag ñu maintenir ñu am xam nga booy xeex avec les finances xoolal actuellement les consortiums. xoolal Bill Gates et autres ni ñuy influencer ci politique u état yi donc il faut des moyens moo tax ñun ñu war a financer le développement de l'Afrique. ngaa yi dañuy xoolaat euh, vidéo boobu nga xam ni waaye si dëgg-dëgg dafa wane xol bu kawee bu yaatu bu mag euh, ginnaaw bi ñu reyee doomam ñu dellusiwaat léegi si sunu plateau xel ak xol. feel sorry for your parents. They raised and they want you to be successful. Your success is their success. Now they have to cry because of your crime that commit my son, my nephew. I forgive you on behalf of Salahuddin and his mother. I think this may be a good time a break. Thank you. I'm sorry about what happened that day. gis nañ euh, waajooju waajur la bay nañ doomam waaye moom baal na ki nga xam ne moom moo bokkoon si bi ñuy rey doomam euh, xool doomu aadama bu yaatoo mu mbañeel du si nekk iñaan du si nekk soxor du si nekk euh, njéggal daf si daf si fees Seydina Maam Alassane Laye Sow tey lan ngay jeexale waaw li muy avant muy avant muy jeexal il mu am tam benn plaidoyer bu ma dugal en tant que défenseur de consomateur parce que boo boo xoolee euh, depuis 2009 transport public bi ñu am mooy tarif yi nga xam ne dafa am si si si si si kaar yi aftu di daw benn jaaru si yoon euh, kayit këyit gaa ngi ni ngi ni tarif yi amul benn bu nga xamante ne légal legal na si maanaam respecté wuñu tarif yi nga xam ne euh, tarif bi te statut bi nga xam ne moom mooy régulier mhm. li mu si war a def ba léegi defu ko si mhm. nga jóge foofu tamit ñëw tamit ñu ngi jot ba léegi ay ay rek ay ay plaidoyer yi jóge tamit si sérété autoroute bi. Mhm. à péage bi autoroute bi à péage sérété bi surtout géré wu ko. waaw loolu tamit il faut tamit wax si ni ñu ko inquiété parce que léegi oto yi dañuy jaar autoroute à péage jël seen prix bopp dugal ko te amuñu si droit. jël seen prix bopp. prix bopp par exemple tey nga jël benn Ndiaga Ndiaye Petersen. waaw bu fii ak fii ak caare war a nekk 150 mën na la 200 200 la. ndax day jaar si péage. day jaar si péage. loolu du yoon parce que te bi bi autoroute bi bi ñuy defar tarif yi autoroute bi commencé gul commencé guloon loolu nag ñi nga xam ne ñoom lañ chargé wu loon seen dañu war jël seen responsabilité defaat yeneen mais Seyna yéen lii yàgg nañ leen dégg ngeen koy jàmbat ah. mais lan ngeen def nag pour mbir mi saafara li li ñu def li ñu man bind naa kii yóbbu ko statut pour réclamer que pour que yoon teguwaat si yoon bi mais maa ngi leen di xaar amagul retour. amagul tontooguñ la ba léegi. tontooguñ mais am nañ tam ñun beneen plan d' bu ñuy def mooy que euh, buñ ko bu ñu amul retour ba ba 2018 dinañ def plainte contre transporteur yi nga xam ne dañ ñuy arnaque. aywa loo jeexalee Seydina yóbbu si yoon. beneen beneen soo balaa beneen beneen bi tamit ñuy jeexate mooy tamit dañ nekk ci benn kuréel bu ñuy wax codex alimentaris mooy xamante ne ñoom ñoom la état bi dénk li ñuy wax sécurité sanitaire des aliments. lu ñuy lekk environnement lu ñuy lekk lépp lu ñuy lekk ñoom na yàlla ñoom la état bi dénkuloo pour ñu def prévention fexe ba nit ñi bañ a xam nga moo ëpp solo fexe ba nit ñi bañ a feebar moo am solo loolu yëpp nag si ñuy lekk si la ba defoon nañ benn enquête bu ñu defoon euh, si euh, source de maladie épidémie maladie yu bëri am fii lu ko defee ay ja ay diabète ak ay ay yooyu ba ñu xool ne bion yi ñuy consommé ñun fii Sénégal bion yi ñuy consommé dëggan sama sama dëggante yàlla laay wax rek respecté nañ normes yi ñu defa bien respecté nañ normes yi mais ñun sénégalais yi ni ñu koy consommer moo baaxul. Hmm, ñun dañuy ëppal si wàllum dañ si ëppal yooyu. Euh, parce que waruñu lekk grammes par jour bu ëppee ba ëpp grammes. mais dañuy lekk 5 grammes par. par jour. ah loolu de moom hmm. tension rek la jur ak ak ak ak ak euh, am na maladie surtout maladie yu bëri yu muy yu muy créé cancer de. la euh, lekk moom bu bu baaxul surtout bu suukar xorom wala diw ëppee loolu feebar rek lay ah, indil ah. doomu aadama bi. Pam Ndeye Samb yow loo jeexale man li may jeexale daal mooy man euh, j'appelle à l'action pour le changement te yoon boobu ma wax nii dama kaa teg mu leer. keneen ku am nag beneen yoon tamit woo naa la nga ñëw ñu waxtaan. sa yoon daal mooy na ñëpp bokk ci MRA su ko defee nit ñi cotiser ay ñeent fukk ay téeméer. ñu dajale économie solidaire quoi. ñu ñu dajale euh, tàmmalee moom suñu bopp. tàmmalee moom suñu bopp parce que dinañ am une mais mise sur l' économie. Mm. te suñu demee ba am doole nit ñi bari bu ñu nee état bi lii la ñu bëgg def naa dina ci taxaw. Hmm. waaw te ah. kenn du ñu bës kenn benn kenn du jógee fële ak say armée ñëw. donc te mouvement bi taxaw na parce que lii nii manifeste bi je l'ai distribué à 800 exemplaires ñu distribué ko ba université ba fépp donc on peut dire que touché nañu lu ëpp 2 ou 3 millions de personnes di def ay rajo ay émission rajo di def ay réunion di def ay meeting des concertations populaires avec les populations donc ñu ngi ci léegi nag fi may bëggoon jeexale mooy ah. rendre hommage ak martyrs yi nga xam ne yëpp xeex nañu parce que ñoom ñoo indi lii tey. comme kan. Euh, bon y' a comme par exemple le professeur Dubois Malcolm X bon Marcia Garcia l' américain là c' est un auteur Nelson Mandela bon en passant par les comment dirais-je Lumumba bon ak ñeneen ak ñeneen Kadhafi waaye waaw surtout Kadhafi je lui rends hommage. delloo njukkal sunu ay euh, technicien tey euh, Papy ak. am euh, Amdi Moustapha ñoo nekkoon si euh, caméra yi euh, Amad Ndiaye moo def son biraa def vidéo delloo njukkal Ngaay moom moo moom moo réaliser émission bi suñu ñawkat Mass Cooper fii ci ñaari mbeddu Liberté si delloo ko njukkal yéen ñi bàyyi xel ñëpp si xel xol yéen amuñu seen fay xam naa gàmmu gay tax ba ëllëg àllarba ak alxames xel xol du am waaye bu soobee yàlla altine bii di ñëw dañu fi dikkaat 6 heures ba 7 heures fii ci 2STV di leen ñaanal jàmm wa